lépp incha allah bi Seny TV

Nada xalaat ko mi ngi noonu. moom nga dégg Tunkara Balla Gaye génn na xam naa saa cee soreetul euh, ñu bàyyi leen xel nga bàyyi xel ñi saan seen TV en direct. Balla ngi noonu génn na capuchon bi ba léegi mi ngi takk capuchon bi. Kébé Sa Thiès xam naa mi ngi waaj génn Balla mi ngi wax am na ku mu génnal mi ngi dàq gaay pour ñu génn. Balla Gaye ngi noonu ba léegi ak capuchon bi mi ngi taxaw ak capuchon bi xam naa saa soreetul euh, bala Gaye ngi noonu taxaw am na ku génn am benn col bu weex bu mu muuroo Balla Gaye mi ngi dàq booy nekk ci biir nee na gars génn foofu ndeysaan Balla ngi noonu ba léegi wax ak saa léegi mu génn ñu bàyyi xel li nga xamante mooy euh, génnu Sa Thiès parce que mag ji ngi doon taxaw mi Balla Gaye am na ñu muy waxal am na ku muy waxal ba mu lëng ko xaw ma kan la mais xam naa waayu Balla Gaye la ñoom ñaar ngi wax ñu waxtaan ak moom ndeysaan Balla Gaye ngi noonu mi ngi xëcc capuchon bi. waaw mi ngi noonu xam naa mbir la mu génn mbir la mu génn Sa Thiès soreetul Balla Gaye mi ci kaw waaw mi noonu Balla dugal na si kër gi wala Balla mi ngi si buntu ba léegi mu ngi taxaw. Balla gi noonu. gaa yi nga dàq booy bu ñu jógee foofu. <laughs> waaw mi ngi noonu Balla noonu. gaa yi ngi dax gaa yi xam naa Sa Thiès waaj a génn bu jëm stade jëflante nga ma ta bay Eumeu Sène waaye li ma si jaaxal Eumeu dafa dugg ci kër gi ñaari yoon jëflante ak ñoom daan na daan Balla Gaye ñaari yoon Sa Thiès nag tey laa ma dafa war a jël au xam ni ki muy bëral dafa daan dugg si kër gi daan fi magam ñaari yoon kon tey am taxaw mu yan ma yan ma indi ko jëlal lemal am am waaw mbokk yi seen